barkeb sëriñ Touba mbokki jullit yi mbokki taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam ngeen ne tey jii fii ñu ngi fii ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Kara Mbacke ni moom Cheikh Ousmane Mbacke mi nga xamante ni kenn ku nekk xam na ab yëngoom ci yoonu lislaam waaye kenn ku nekk xam na ko ci biir kër sëriñ Touba kenn ku ne xam na ne màggalu Daaru Muxti tey jii la ñu ngi koy amal fépp ci biir réew mi rawatina nag fa nga xamante ni mooy da dëkkub maam Cerno Ibra Faati ndaamal daaru bi nga xamante ni Baye Cheikh Khadim Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal Sidi Ibrahim yàlla na ko sunu borom yàggal lool ca wéral ko ak njabootu borom Daaru Muxti gépp ci barkeb Serigne Touba Mbacké ki ngeen xam ne mooy caatum borom Daaru Muxti kenn ku ne xam ne ne tey jii ma ngi koy defee ca Côte d'Ivoire yàlla na ko sunu boroom yàggal moom it ci barke Serigne Touba waaye Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni borom Bamba fépp borom Bamba partout borom Bamba bi nga xamante ni wër na réew mi wër bitim réew kenn xam ne ne tey jii mu ngi koy amal fii ci Mermoz ànd ko ak mbooleem jullit yi mbooleem taalibe yi waaye rawatina soppee Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni waaye soppee kuréelu Bamba fépp ñoom ñëpp tey jii daje nañ fii tey jii foo sànni mbattu mu tak fii ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Kara Mbacke nóoréy ni kenn ku ne xam na ni taawam bu baax ba Sidi Ousmane Mbacke yàlla na ko sunu boroom yàggal ca taxawal ko ca dëgëral ko ci barkeb Serigne Touba Mbakke ak mbooleem njabootu Cheikh Mamadou Kara Mbakke ñoom ñëpp Serigne bi yabal leen ñu nekk Daaru Muxti di fa amal fu bis bu tëdd bi tey jii kër ga léegi kenn ku nekk xam na ni boo fa duggee ñu ngi wax ni kër ga ma nga fees dell njabootu Cheikh Mamadou Kara gépp daje nekk ci kanamu taawam bu baax boobu di Serigne Ousmane Mbakke moom Serigne Modou Kara waaye ñu nekk fii tey jii di màggal borom Daaru Muxti mi nga xamante ni tàggoowuloon ak Serigne Touba ci ngir dundam 1803 bi nga xamante ni Sidi Birahim ganee na àdduna fële nga xamante ni mooy Poroxaan Poroxaan Tukulóor ba 1944 bi nga xam ne bàyyikoo na fi lépp tàqoowut ak Serigne Touba waaye kenn ku ne xam na ni loolu moom la njabootu borom daaru gépp di wéyal Serigne Modou Kara di koy yaatal ci biir réew mi ak bitim réew waaye ñoo taxaw ak kenn ci taalibe yi Cheikh Mamadou Kara Mbacké Noreyni duñ leen ko présenté dañ koy bàyyi mu nuyoo ak askan wi présenté wu bu ko defee ngeen euh, ñu dugal moom ci waxtaan wi ndax li nga xam ci mooy communication bis bi lépp moom la ko Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké jël teg ko ci loxoom mu di ko doxal ànd ko njaboot gi sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله شكور رافه على محمد يا رب بالمصطفى jërëjëf teeti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw ñu bëggoon a xam rek tur bi ak sant bi le temps que ñuy laaj li nga xamante ni mooy bis bi ak nin ko programmé ba fii mu egsi waaw tur bi Mouhamed Ñing la man maay porte parole Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni sëriñ Mouhamed ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ca di la dalal jàmm bis bi li ko waral ba seex Mouhamadul Kara Mbàkke woo taalibe yi woo njaboot gi woo julli di ñëpp ñu daje fii lu waral bis bi waaw jërë ngeen jëf dañu sawar tontu la ci ndax comme ni ko wax sa njëlbeen wax ku ne xam na ajuma ji tey ba demee yoru ca Daaru Musti da nga fay màggal màggal gi yàgg ko faa def jamono am fu mu toll Cheikh Ahmadou Kara Mbàkke noonu bëgg ñëpp jot ci yërmande Cheikh Ahmadou mu ne kon nag njaboot gi dañ koy xaaj ci ñaar Seydina Ousmane Mbacke mi borom baax di taawam nekk fa ca Daaru Muxti moom mu indi ko fii ci Dakar ngir ñi nga xam ne na amoon nañu yéene dem màggal gi te mun ñoo dem ñu jot ci yërmande borom bis bi ndax nee na comme ni nga ko waxee sànq dafa jot ndax bu ñu nee Bamba fépp Bamba partout Bamba mersi yërmande Sëñ Tuubaa dafa war a daj àdduna moo na mu gëm loolu moo tax nag mu ci def ay jéego boo seetloo daaw ci waxtu bi mu nga defoon màggal gi ca Thiès mu ne ko fii Dakar nee nag incha allah fas yéene na wër ne na fukki région Sénégal ak ñeent yëpp màggale fa tasaare fa yërmande Serigne Touba ñëpp jot. kon loolu bu ñu la déggee dafa mel ni da ngeen koo tàmbalee dakaar waaye at mu jot Cheikh Mamadou Kara Mbacké Noreyni daf ko bëgg a yóbbu ci benn diiwaan màggale fa li nga xam ne mooy màggalu borom Daaru Moxti. noonu la ko bëggee ndax comme ni la ko waxee sànq dem Serigne Touba dafa daj fépp nekk fépp premier état bi nee na mooy Sénégal bu noppee Afrique la bu noppee Afrique nag cinq continents yi ndax nee na moom la ñu désigné en tant que mu tasaare xam ne kat bu ñuy wax nee na lislaam Cheikh Mbaba Khady Soul moo ko dond mhm. te nag jot na pour na ñëpp jot seen wàll maanaam cinq continents yi bu nu déggee dafa mel ni cinq continents yi Cheikh dul Kara dafa nar a dem ba génn màggalu Daaru Muxti ci bis bi muy amee ñu génne ko li nga xam ne mooy Sénégal yóbbu ko ci bitim réew moo xam réewi Afrique yi wala réewi Europe yi noonu la ko bëggee ndax comme ni la ko sànq moom fii lay feeñee ci saar côté dëgg waaye ba muy ñaan boromam ca gamu di wax naan yaa malikal mulk yaa man jar xew a dem irham jamala waraa googu dafa jot pour ñëpp jot mu waxaatam ci ay moom Sëriñ Tuubaa ne yàllaa gu yan suru ni wal xalqu tat baaw unni fil bëx wal ba zanab min ila dararin dafa noon Dieu m'assistera pour toujours et les créatures me mu ne des terres et des mers je leur serai utile sans aucun préjudice ma ne koo xam ne amul dara lu lore dafa jot nag sëkk ki ne na ñëpp jot seen waat waaye loolu sëñ bi jullit yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan taalibe Serigne Touba yi soppee Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni mi nga xamante ni kenn ku ne xam na ne lii nga dégg ñu naan jërëjëfa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kenn kenn ku ne xam na ne bokk na ci ñi njëkk takk seen laxasaay ni ñoom ñooy bàyyi faalu Cheikhul Xaadim bëgg na noo xam loolu lan la ci jublu ba bëgg koo yóbbu ci réewu Europe yi. waaw ndax boo seetloo mbir mi. comme ni ko la sànq Sénégal la tàmbalee. naam sax ngi yëngu Europe. waaye ak fi jamono toll ak moo de communication ak xarale yi dafa bëgg mu gën a yaatu daj fépp ndax kat mu ñu fàttali ne Serigne Touba moo wax ni moom il est le sauveur de l'humanité njàm naa mu bind nag wax na ko nag faaw am ko ko dox Cheikh Ndouka Mbacke mi ne ne moom nag la ñu désigné ngir mu fas yéene sol daal noonu nag ndem moom daa féete ci Cerno am lu borom Touba xam sol waxoon borom daaru ne ko sama mbóot ci laa ko denc moom nee na ma gëm ni kon moom moom mooma moo tax nag mu takkat gertaru ku fas yéene doon nag soldaari Serigne Touba ndax moom taalib rek la fas dox fas koo doon wër na adduna mi wër na gël képp wane kan lay ko tedd ci ndeysaan su ngeen déggee loolu mu mel ni dégg ngeen li mu wax Serigne tubaa dane woon borom daaru sama mbóot ci yow laa ko denc maam Thierno Ibra Faty Ndamal daaro kenn ku nekk xam na ni Serigne Moussa Ka way na ko ni maam Thierno tàgguwut ak Cheikhul Khadim ci ndawam ba ci ak mbagam waaye léegi rek bi nu xoolee léegi rek bi nu xoolee dafa mel ni ku tedd ki Cheikh Cheikh Modou Kara Mbacké nóoré ni kenn ku nekk xam na ni fi mu ne nii mu ngi nii di génn ngeen gis kuréelu Bamba fépp fi mu ne nii taalibe Serigne Touba yi kenn ku nekk caméra yi téléphone yi ñëpp ngi ñu ngi jàkkaarloog soppeeb Seexul Xaddim bi nga xamante ni mooy soldaaru Serigne Touba kii di génn moo jàkkaarloog Serigne Touba ni ko ñun ñooy xaji Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Saliou nangul ko kii di génn moo demoon Europe yaatali fa li nga xamante ni moo di kuréelu Bamba fépp kii di génn kenn ku nekk xam na ni mooy soppeeb Seexul Xaddim bi nga xamante ni dani lépp loo xamante ni jóge na ci kër borom daaru di tabb si kër Seexul Xaddim man borom daaru mi nga xamante ni maay Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni loolu maa koy yaatal yaakaar naa tey jii fii taalibe yi kenn ku nekk gis na ko mu ngi noonu di dox di ñëw ngeen gis sécurité bi dar ko taalibe yi di bëgg soppe yi di bëgg yaakaar naa lii yaakaar naa fu taalibe bi Serigne Touba nekk rek tey ji ci biir réew mi yaa ngi ci bëgg waaye li nga xamante ni mooy innovation bi nga xamante ni moo am yéen ban taxawaay ngeen def ban ban taxawaay ngeen def ba lii nii am ak ni mu impact bii mu am. waaw xam nga Cheikh Abdou Ka Mbacké dafa am lu ndax boo xoolee moom 1981. la wuutu Sénégal Mbacké Ndour ne ci Sahel 1981 <laughs> la UNESCO décrété année internationale de la jeunesse en <laughs> kon du Sahel <laughs> la toog ñu décrété année 21 année de la jeunesse comme moom ba ko Serigne ndaw ñi yàgg na xes sa ko tudd moyen bu naa fi fi ma daay saafi wax ci moyen bu ci benn béyt te ab lii bu roora xam ab dam furora li kuli ray yi maanaam yàlla Serigne ñaan boromam ndaw loo xam dem ba boromam yow yàlla dañu ñëw ci man bu ñu ñëwee ci man ku leen gis na mbég sëñ ma Kara ne béyit bi bi ko bindee maa tax moo tax mu ne kon buñu ma bodil kenn buñu ma dàqal kenn dañ ma indil ñëpp naa leen defal ci karamatul ak kon bañ set jëbal Sénégal jëbal waajur yi jëbal société bi kon communication ànd ak ñu démb la bi nag lii bi mu ko jàppee tam wooñu wooñu ni mu ko bëggee ñu waajal ko tey boo xoolee ci suba di tàmbalee tëngeej ba fii pépp fu ne wàcc nañ fa soixante-dix kaamil gox bu ne toog fa vingt-huit man bis bi alxuraan ngeen ko laytaaye lañ ko laytaaye bu joxoon ay limu xes la yu toll trois cent treize 70 mbana. basmala basmala basmala. wax bu ne toogatee 70 mbana séddale ko tey kon Dakar tey ñëpp ñu ne tey ji ba suuf Thierno Ibrahima Fatick bi tey la. ndeysaan kooku mooy sëtu borom Daaru Moxti bi Cheikh Modou Kara moom ngeen seen noonu mu toog moom ngeen seen noonu mu taxaw jàkkaarloog taalibey Serigne Touba yi waaye sëñ bi. léegi ci biir image bi maa ngi gis benn tubaab bu taxaw ci ginnaaw Cheikh Mamadou Kara moom ngeen di jàkkaarloo ni kii taalibe yu bari dañ koy laajte bëgg a xam moom lan la doon ci sëriñ bi taalibeem la wala soppeem la wala ku ñëw noonu rek la ma jàppale dina ma womatal ñu ñun ñi ak ñu weex ñëpp dinañ ma wuy si léegi nag loolu la sëñ bi tàmbalee dëggal tey ji Europe la mu fa am ci ay talibé la dafa mel ni sëriñ bi mu ngi wax mu ngi tàmbale dafa mel ni ñun ñëpp ñu maase ko par la groupe groupe sopp gi nga xamante ni la ko moom lañ ko sopp mu doon loo xamante mi ñu ngi ak DTV di ko seetaan waaye di dund màggal gi nga xamante ni mooy ñaareel bi màggal bu bàyyi Cheikh Khady Mbacké mi nga xamante ni moo fi wuyutu magam ju baax ja Baye Cheikh Khady mi nga xamante ni kenn ku ne xam na ni kër borom daaru moxti gi nga xamante ni moo nekk ci kër fi nga euh, fi nga xam ni mooy kër borom daaru li nga xam ne moo jàkkaarloo gi Baye Cheikh fi nga xamante ni fi la maam Thierno Ibra Faati ndaamal daaru njëkk a wàcc fi nga xam ne fi la borom daaru njëkk a fanaan nan ko yokk ci kër borom daaru gi ñu fas yéene fee def ay jànguwaay alxuraanul karima war fee def ay daara yoo xam dañ fi jàngale njàng mi nga xam ne mooy njàngalem Cheikhul Khadim waaye ni njàngale mi nga xam ne mooy njàngalem lislaam kooku yaakaar naa moo wuutu borom daaru jëmate ko sëkk doomam ju baax ji Cheikh Modou Kara Mbacké nooréyu ne tey jii maire Mouss yaakaar naa foo taxaw mu ngi fees dell taalibe sëñ Tuubaa yi gis ngeen noonu ñuy toogee ñoom ñëpp banque seeni tànk doon ak taalibe waaye li sëriñ bi njëkk a def ci ñoom moo di ak ragal yàlla li sëriñ bi njëkk a def ci moom moo di ak yaru maanute sëriñ Modou Kara dafa dëwee nit ñu baree baree baree bari ñoo xamante ni danoon da góon ci weneen yoon ñii daan nañ gens ñii daan nañ agressé ñii daan nañ dugg ci loo xamante ni seen yoon nekku ci waaye Cheikh Modou Kara daf leen a ñoddi ji jëli leen foofu ñu nekkoon dugal leen ci li nga xam ne moo di siraamat siraatul mustaqim waaye xamal leen kii nga xam ne di moo di Cheikh Ahmadul Khadim liggéey boobu fan ngeen ci tollu sëñ bi daanaka résumé nga ko ndax ci 1995 ba mu jógee pare yëg mission bi la day loon mbokk taalibe ca Langsar mu futti leen ñu tolluñ ci limu 650 personne ñu tàmbali di yëkkati allahu xay dun 2 heures ba 5 heures ba ñu noppee mun nañu na ngeen wàññi lim bi ñaata la ñu limbi lim bi muy 650 personnes mu ne ni ko téye bu ñu demee ba yegg ki ko fa nekkal ca jamono yoo di Cheikh Saliou Mbacké yàlla yàlla tas ci barkeem mu nañu mooy leeral liggéey ba ñu jóge Lansar ànd ak moom dem ci tànk Serigne Saliou mbooloo mi boofu sëñ Modou Kara ne ko dama fas yéene ànd ak mbooloo mii te des suñu dund fas yéene doon ay soldat Serigne Touba doon sa su tur ak ndigal Serigne Saliou Mbacke ne ko Modou mu ne ko Mbacke mu ne ko dégg nañ la mu ne ko dinañ la tontu ñaanal ñu ñu ñibbisi ñu toog ñaar fukki fan ak juróom-ñett 28 jours mu génne téere bi de diwaanu silkul jawahir fi bari sarair jël ko jox ko Serigne Saliou Touré bu Thiès na ko yóbbul ko sëñ Modou boo demee nga ne ko na ko tuddee mi waaye na wàññi xob ba nopi seigne Saliou Mbacke ne ko na ko tuddee mi na wàññi xabi ba nopi biñu ñu moy 650 six feuilles di 650 personnes li ñuy saytu mooy lu baax te lu baax malaaka moo koy saytu moo koy taal bu dee appareil moo yore télécommande bi bu ko defee ñu maase xam loolu bu ko bu nu ko xamee ba noppi nag kon lan mooy lan moonu ci war ci ñaar yooyu fu ñuy tàmbalee fu nekk nañu wax audu billahi mina sheytaani rajim bu ko defee Iblis daw ni fii du sama place ñu ne bismillahi rahmaani rahim malaaka ñëw ni fii mooy sama place kon mu leer nu ni Iblis nekku fi mu des lan damaa gis jamono lu xew rek ñu jiñ ko seytaane te am na ci yoo xam ne donte ab tooñkat la it am na ci yoo xam ne dañ koy tooñ ndax moom quatrième position la nekkee moom iblis dafa am lu ñuy tudde alhawa am lu ñuy tudde anafs am lu ñuy tudde ad dunia iblis soog a ñëw seytaane soog a ñëw te lu xew ñu ne iblis la ma xalaat li ko ko teg donqoom woowu nga xam ne dafay weexoon ca démb ba yàlla ne usjudu li aadama ñëpp su jóot mu bañ ca la ko donq weex wa toppe woon bala may jàll sama mbokk di Sharif Sharifa di Fatoumata Bintu Haydara ak soxna Umu Kara Mbakke ak soxna Fatou Ñang mi nga xam ni bi ma koy décider pour mu nekk tête de liste département wu Dakar li ma ci jublu woon Mom soxna Fat Ñang bu Wakam dama dugal sama tour ba nopi pour am luma fa bàyyi sirran wat sama tur dugal turam ndax dégg ngeen li ma wax waaw dafa am luma ma koy cee wutal spirituellement motax ma ñëk fa dugal sama tur ba nopi genné ko nak soga duggal dugal turam soxna Fat Ñang motax dina wax Fatou ay drak ñepp ak waa Wakaam ak seeni mbokk ak seeni xarit yépp ñu bañ a xool ku ma jiital nañu xool ki tax may jiitalaate muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul borom Hizbul Haq bu ñëpp xoolee foofu rek ku ma ni na jiitu ku ma ni na jiitu rek waxuma ko pour bëgg lu ko neex dama bëgg njiit mënut a ñàkk équipe de football sax day am capitaine am ndét waaw yenn saay deuxième mi-temps wala sax yenn saay saa yu neexee kii rek bi rek <laughs> ana jiili saa yu neexee kocc bi rek maanaam mu génn keneen ki du dëgg Jérôme male ak Ablaye Diouf Ablaye si ak Dekaza Cheikh Cissé Malé wax naa soxna léegi ci téléphone ni ko Cheikh Cissé mooy doon tête de liste tête de liste département wu Thiès waaw wax naa ko soxna léegi man fi mu toll nii Ablaye dàqu leen ma politique de dama ciy duggul rek waaye dàqu leen ma politique Moustapha Fall bu Thiès dafay coordonné ñu bari ci Thiès dañuy koy njiitul daayira lañ koy teg azaimu daaira dëgg la njiitu daayira la waaye am na nit ñi moom laay coordonné loo suppléant la fay doon Cheikh la tax ma ma ko fay jiital moom xam na man xam naa waa Thiès xam nañ du dëgg kon Ablaye na ngeen appliquer lolu waaw c'est un ordre des fois damay xawa dictaturer un peu c'est normal non naziran <laughs> jamono koy ki jamono koy jamono koy wote soxna sen ak di dom, di ummu ummi sal bismillah fadal ah ñaare de man bu xasse jitu rek mom, ma xasse jitu, dañ ma war di jitu. da ngeen maa war di jiit <laughs> kooku soxna mbenn lañ koy wax soxna mbenn kara <laughs> du mën a tudd tur yépp nag waaye am du moom du moom la hmm. Hmm. am ndeet Omar <laughs> soxna mbenn la waxoon naa leen sànq waxoon naa leen sànq mbirum

la balle est dans son camp. Pourquoi Il y a toujours l'intention. C'est l'intention qui est toujours là. mu lan action en un dafa laaj action dafa laaj settantal ni ñu koy defee xam rek def faw am organisation faw am programme organisationnel.

fi mu ni nii dafa wara a settantal ñi mu andalon ak ñi mu andal ni ak ñi mu war a à l'avenir du pays c'est très important ñet mbir la yu bokul ki ma andalon demb ak ki ma andal tay ak ki ma wara andal ëlëk ki nga wara andal ëlëk dang koy préparer tay n'est-ce pas c'est très important bu ko defee rek bu wuyoo ci li ma koy woo alliance mutuelle lui et moi une alliance boo xam ne Inde lay tudd AND AND and alliance nangu dëgg wala ànd nangu dëgg moom man ñette gannaawam soutenir ko ñi ci sama gannaaw soutenir ma ñu déglu ba xam nan laa ma ne buntu kër bu nekk na fa kenn taxaw ne karaan nee na tàcc moom bu ñuy tàccu ñuy bañ a tàccu ñëpp dañuy tàccu mbaa ñëpp bañ a tàccu déet maa xam li tax ma wax ko xam nga tàcc mooy li nga wax ànd naa ci ñàkk a tàcc mooy li nga wax ànduma ci kon kon alhamdulillah alhamdulillah kaziran waaw ah, kon alhamdulillah ndax wax deug yalla nit buy day def dara bo sañon ña nga koy and ci ak yow soutenir la du deug te lu bax rek nu taxajuk kon nak ma ñew tuti ci lama waxon hizbul xisbul mom bu fekkente ni alliance bi ma ci makki munta nek hizbul bu demalee bopam élection man naruma ci wona bok vraiment naru wona nek ci liste bi naruma ci wona figurer mais alliance bi may wax Macky bu fekkee dafa jàmp ba mënta nek après lay meuna nek je suis obligé d'être candidat à la xam ngeen lu ko waral njaboot gi dañuy ñett biram góora ak jogoy góora moom fu ma dee mu dee fa biram xuree ja moom bu xamee ne ak dee dina wokkutu dina geesu waaw te bu ñu ko bu amee yoon wu mu jaar boo muytul dee dellu gannaaw jogoy nag day def na séeréer bi defoon ba mu baree ay problème <laughs> bari ay problème lool xamul nu muy def mu ñëw wéeru ci garab gi garab gi bëgg a daane ci kawam mu dem taxaw fee jàkkaarloog asamaan si nii yàlla yow li ma ci ay problème fajuwul nga bëgg maa reyee mii boole ci ni ko loolu mën a lool am samay problème fajaloo ma ko ba pare bëgg maa reyee nii teg ma bu rey mënta ñàkk reye ma ne neneen njaboot gi ñett la kii day ànd ak yow ci li nga nekk kee da koy seet ba xam arrangé na ko arrangé wu ko kële nag moom démocratie bi dafa xew ak liberté d'expression wutal leen ko fu mu wutal leen waaw bismillah soxna ami 24 kara moom xanaa ñëw am na soxna ami 24 kara Maroc moom 24 kara la wax 24 la wax kara moom kon daa ñëwagul soxna tuutaan moom dafa mer na ngeen ko neexal dégg dégg nga Cheikh ak Abdou khodous mané soxna tuutaan dafa mer mom da ngeen koy neexal jigen bu meree da nga koy neexal <coughs> dégg ngeen wa ah, ku bax la ku bax la da ngeen koy neexal Cheikh yene di ay domam da ngeen koy neexal bu ngeen amé sen yaay bu meree da ngeen koy neexal deng <laughs> wow bismillah tabarakallah kooku mu Abdou wala ah waaw Abdourahman waaw nu toog foofu mu mel ni dañu waxoon ne dafay am suivi point de presse mais dafa mel ni buñ paree est-ce que dina ko aaje ndax damay jàpp ni day euh, dañuy jàpp ne bu ñu jëlee bu ñu jëlee li may wax yaakaar naa du ko jar waaye nag ngeen baal ma il faut nag dafa am loo xamante ni bi dama koo binduloo woon dama ko binduloo woon faw ma jéem koo wax teel ma kàddu bi ngeen baal ma dafa munta ñàkk waaye mën naa ko mënoon naa ko jàngloo Bachirou wala Mohamed Ñing wala keneen waaw bismillah Mamadou moom ci waa Firdawsi la bokk Mamadou Tall

Paix et salut sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Renouvelons notre allégeance et notre gratitude à cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, le sauveur de l'humanité. Le serviteur du sceau des prophètes, en ce 15e jour du mois de Chamban, Moi, nisfu Chaban tay de màggalu daru nisfu Chaban fukki ak de l'année 1437 marquant la célébration des retrouvailles entre ay tax ñu man duma di waxe nonu sax nan digënté Touba ak duma di waxe et son illustre frère man son illustre Mouride son illustre aspirant mais véridique et intelligent Donc nekkul a discours Lolo am. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul qui revenait de son exil au Gabon la célébration de cette journée nous vient du Ndigel, de Cher Mohamed Fadil Mbake, qui considérait ses retrouvailles de Saint-Louis comme une victoire éclatante de l'islam dans la mesure où, d'une part, Brom Touba revenait triomphalement d'un exil de sept durées années d'épreuves au Gabon. Et d'autre part, M. Ibrahim qui avait eu la lourde responsabilité de présider au destiné de la Mouridia avait d'implanter celle-ci dans tout le pays. Maintenant, hier, dans tout le pays, hier, mais aujourd'hui, Mangani est en dehors du pays la commémoration de ce jour euh, nous permet de revisiter l'héritage légué par notre guide cher Ahmadou Bamba Khadim en nous interrogeant sur notre présence et notre séjour ici-bas. En effet, Allah le Tout-Puissant ne nous a-t-il pas dit dans le Coran, Sourate 51, verset 56, Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Autrement dit, l'adoration du Seigneur doit sans aucun doute constituer notre activité principale sur terre. Cependant, force est de constater que la plupart des croyants ne font de l'adoration de Dieu qu'une activité secondaire. Une analyse froide et objective montre un monde caractérisé par la violence et la corruption comme nous, nous dans le monde en commençant par l'Afrique, notre continent finalement ne devrions-nous pas nous poser la question de savoir si les anges si les anges n'ont pas eu raison raison d'une part raison d'une part du ni sur leur seigneur parce que kon day melni day upp day melni kon malaka da fay am raison ci kanam boromam ci bu yalla nee nangam motax dama nan d'une part waaw par leur réaction parce que dañoo réactionné bi yalla dani leen damay yebal fi planète bi dama fi indi l'être humain doomu adama ñu ne ko foofa boo fa yóbboo doomu aadama itam tur deret ak yàq lañ fay nekke waaye nag du tax booy wax faw nga seetlu ni nga koy waxee ndax yàlla mooy yàlla ñoom ñooy ñoom ku ci nekk daa am loo moom yàlla lañu la moom yàllaa leen ko may waaye danga leen di limité moo tax en effet lorsque le bon Dieu informa les gens de sa décision de faire d'Adam son vicaire. Hein? Alors, ah, vicaire, comme <laughs> wa sur terre. Hmm? Représentant <laughs> sur terre. Comme nous David, il n'a pas de l'art. fil ard. <laughs> Hmm. Ces derniers avaient considéré que l'être humain ne ferait que propager la violence et la corruption. Depuis lors, euh, on a constaté dans les différentes parties, du monde, de multiples conflits. <laughs> ah ouais, <laughs> on a constaté dans les différentes parties du monde de multiples conflits. Les causes sont certes différentes, dont la plupart euh, sont dues. D-U-S. Hmm? par un manque de tolérance même ñi les ba am ay buñu japp ne xam nañ lépp asiment ñi les moo buma bu fu ma jaaxal kenn ku jang waaw wa shawirhum fil amr waaw kenn ku ne dang koy jox limu mom ku nekk ci ñun daf ba parce que les ma jox kii bokkut ak li ma jox kee jox ak te ku ci nekk da ngay soxla sa moroom la mu yor danga cee cey soxla léegi bu nu àndul nag nun ciy jote liikat la moo tax suñu borom ni nu nag ànd leen waxtasimu bi hablillahi jamihan wala tafarraqu bu leen bu leen divers bu leen kii tas bu leen tàggali ko mu ngi mel ni nag gis nga bi daje bi jotee rek nu daje fii war a waxtaane li nu fii waxtaane les causes sont certes différentes, dont la plupart sont dues par un manque de tolérance, une course effrénée aux richesses et un recours abusif à la violence. Dans un tel contexte, il devient impérieux de rechercher une alternative crédible à la violence physique et verbale surtout celle qui est faite sur la base de la religion Nous, ñi bi l'islam ñu des islamistes non nous wax les terroristes Nous sommes a islamistes. un islamiste c'est quelqu'un qui est bon qui est généreux c'est quelqu'un qui est un homme de paix une personne de paix une fois que nga ni islamiste rek ku baax nga

salaam salaam rek la ñuy wax boo demee ca isa waqahatil waaqia boo demee ca suratul waaqia ah ñooñu bokkuñu ci ñun wala déet circulation bi mu ne su ko réglé ci am ndënd waxal leneen bëgg ci am waaw xiin xiin kay mënta réglé circulation man ay xiin laa dégg xiin bi ci ñan ñan la ci ñun lañ bokk walla ñeneen déet wax leen ma ndax buñ di bokkee ci ñun moom amuñu droit damaa bëgg lu leer rek ah bëgg Thierno bëgg a wax ni circulation bi lañuy ñuy régler <laughs> circulation bi ña koy régler nga foofa bëgg <laughs> mhm. Mhm. waaw Dans un tel contexte, il devient impérieux de rechercher une alternative crédible à la violence physique et verbale, surtout celle qui est faite sur la base de la religion. de la religion rek la wax religion yi nag fi ñu toll nii daa am ñett yu mag astaghfirullah sax ñaar yi ci des manan ñett yu mak waye daal da am ñett Il am ñett ndax de ngeen ñu naan ginnaaw l'islam ñu naan le chrétianisme di wax bouddhiste di wax nangam ak nangam waye alquranul karim de ngeen li wax yonent yi fi yalla yabal yep itam l'islam lañ xana seni wa kra nan lenen bi ñewé <laughs> waaw yonent yalla insa mi ñi wax l'islam la waxoon waaw deug la do nañ ko waye le christ nam <laughs> waaw ndax miracle ay miracle ay lolo tax waye nak mom l'islam la waxoon wax deug yalla <laughs> lislaam ji ba nga tàmbalee ci Seydina Ibrahim te moo ko fi jiitu woon ci planète bi waaw mooy mooy avant dernier dëgg la mooy le sceau des prophètes avant le prophète Mohammed moo féete kaw yonent yëpp Mbàkke jërëjëf Ahmadou ñi màggal ak man ñëpp te yor sant wi mbaa ñu kii nañu may nañu may kiel ñëpp nañu may noteel ñëpp waaw ndax dafa am plus boo xam ne man lañu ko jox plus bi maa ko yor plus وللنازم أيضا زاده الله شفاء وفيدا وللنازم أيضا jóg leen taxaw من الإن وللناظم أيضا زاده الله شفاءنا وفيدنا وللناظم أيضا tempo xam na ni boo demee ci mat la bu sifaa yi ba muy jeex wax nañ ni toggaat leen ndax damay bëgg ñi nga xam ni boo demee ci mat la bu sifaa yi ba muy jeex dañoo wax ni ku tedd ki benn shérif la ko doon binduloo soonu soonu dañoo wax ni ku tedd ki dañoo wax ni dafa soonu di wax shérif bi di bind ñu wax ne bi shérif bi bindee ba xas xasida gi jeex shérif bi moo ni wali nazime aydan moo wax yàlla ne ko ak kii nga xamante ni bii moo woy woy yi waaw dolli ko may yoo xam ne dafay inondé faydan mooy inondation wali nazime aydan ni ko ak ki ko woy itam ñu ni shérif bi moo ko ca tegal loolu loolu la ñu wax ba noppi shérif bi wëlbatiku ni kon yaa man yoromu dafan ku yi falaatu faariq matlaba shifaay waaw yow mi nga xam ni yaa bëgg a défendre bépp maladie bépp feebar kon bul tàggoo ak poème bi xasida bi ni la waddum alayhi shérif bee wax nee nañ fil masaa'i wa sabah wa axlisan tanal shifaan wa fala nee na boo ko defee te takkook moom suba ngoon non seulement dinga nga am réussite waaye di nga am saafara moo tax wali nazimi wa faydan wali nazimi aydan زاده الله شفاء وفيدانا وللنازم bàyyi leen may gale waay bu leen yàkkamti <laughs> rijaal yenn saa yi dañu <laughs> ah lu taxoon da ngeen ma doon nooree ni kon ñaari yëpp a bokk ayca للناس أيضا زاده الله شفاء وخيرا fi ma ko tegoon rek fi ma ko tegoon rek li naazimi أيضا زاده الله شفاء وخيرا ولناازم أيضا ma ñëw dafa xaw a diib warta diib warta gaaw da ngeen naan wali naazimi aydan زاده الله شفاء وفيدا وللنادم أيضا وللنادم أيضا زاده شفاء وفيدا لمنزل الظن والداء وللناس حمدا لمنزل الثنى والدار وللنازم أيضا ذا الدولة شفاءنا وفيدنا وللنازم أيضا وللنازم أيضا ذا الله شفاء وفيدا ومنزل شفاء والدواء من أمر العباد بدعاء ليدفعه بأن البلاء وللنازم أيضا نشاطه الله وفيدا وللنازم أيضا ماني وللنازم أيضا زاده الله شفاء وفيدنا ولنازم jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul man jinne ma jàngal way ak ñu fee bari nag te kontaan ci li ma wax invisiblement أنت الذي تهزم من بك هتسب أنت الذي تهزم من بك هتسم إني بك هتسمت هب لي مهتسم أنت الذي تهزم من benn jinne nee na beneen jinne nee na أنت الذي تهزم من بك هتسم أوه أنت الذي تهزم من بك هتسم إني بك اهتسمت هب لي مهتسما أنت الذي تعزم منطقك بن جنن في أنت الذي تعزم منطقك بن جنن في إني بك اهتسمت هب لي مهتسما إني بك اهتسمت هب لي مهتسما إني بك اهتسمت هب لي ay waay ini bi ka tasamtu habali muhtasam me ini bi ka tasamtu habali ay waay ini bi ka tasamtu habali muhtasam me ini bi ka tasamtu habali muhtasam ay waay ini bi ka tasamtu habali muhtasam me ini bi ka tasamtu habali muhtasam منهني زجر ولا وحيد منهني زجر ولا وحيد وهم إلى الجنان عيد تيد فلا وهم إلى أيوة وهم مري إلا الجنان إيدو تيد فلا وهم مري إلا الجنان إيدو تيد فلا وهم مري إلا الجنان jinnaani du tey defet la wahum ndeysaan jóg leen taxaw wahum muri ilal du tey defet la wahum muri ilal tey defet ndeysaan waxum muri ilal jinnaani du tey de feet la waxum muri ilal ndeysaan waxum muri ilal jinnaani du tey de feet la waxum muri ilal أمري إلى الجنان هدت دفلا وأمري إلى الجنان ليس نهوري إلى الجنان هيدو تدفلو jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fadal À ce propos, la vulgarisation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim et l'étude de son comportement vis-à-vis du colon, voilà devant les colons. de constitue la solution a constituer la solution pour asseoir des valeurs de tolérance et de paix, aussi bien entre les hommes que les nations du monde. Comme il est le sauveur de l'humanité, c'est normal. Euh, plus bi plus bi Même du ci mhm. même njóobeen boobu ci seen wet ngeen ko du mucc plus bi Idrissa <laughs> Idrissa du ci mucc ku en sa qualité de rénovateur de l'islam incarne aussi bien dans ses écrits dans la pratique les valeurs de tolérance et de paix. L'attitude de Cheikh Ahmadou Bamba envers les colons est révélatrice de cet état d'esprit et été déporté... sur la base d'accusations infondées et injustes et ayant vécu plusieurs années de privation de liberté d'aller et venir. Bamba a finalement déclaré j'ai pardonné à tous mes ennemis pour l'amour de Dieu qui les a dirigés vers autre que moi. Je ne riposte jamais. Ou je ne riposterai jamais. Ou je ne ripostais jamais. Non seulement il a accordé son pardon aux colons, mais aussi il a contribué à l'effort de guerre en fournissant un contingent de soldats. Et plus tard, il remettait aux colons une contribution financière pour empêcher la dévaluation du franc lourd à l'époque. À l'époque Guinée-Kouti. arôme des fois indi wala indi jimbo c'est normal nekku ci day safal de fait, de faire, ah, fait. waaw sa kay da ngay safar Cheikh Bamba Khadim Rasoul constitue donc un bienfait pour l'ensemble de l'humanité car il avait posé un regard de miséricorde qu'on a constitué le sur l'ensemble des créatures En effet, sa mission embrasse toute l'humanité entière parce que le prophète dont il est, l'illustre serviteur, était envoyé auprès de tous les êtres. Aussi, le cher posait un regard divin sur toute la création. Il avait en effet dépassé le cadre de la religion. Il avait en effet dépassé le cadre de la religion. Dans un célèbre poème, il exhorte, il exhorte et implore Dieu pour qu'il descende sa miséricorde sur l'humanité entière. Ô Seigneur, détenteur de la loyauté, Ô Dieu, accorde ta miséricorde à toutes les créatures. Ô Seigneur, virgule. Néonat, virgule. Ô protecteur. Ya Rahmanu, ya Rahimu. Ya Rahmanu, ya Rahimu moi, ô miséricorde. »« Ya Rahmanu. yaa raxiimu mooy oh le très miséricordieux bu leen neexee bu ngeen koy way da ngeen di préférer yaa raxmaanu yaa raxiimu rek ndax yërmande ji yaa yaa الرحمن يا الرحيم يا الرحيم يا الرحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim ya ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim ya الرحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم suñu boroom non seulement ñaari loxo la am mais ñaari yëpp loxo ndeyjoor non seulement yëpp loxo la benn bi juróomi baaraam la benn bi ñeenti baaraam la yaa rahmaanu ndax musu ngeen a dégg loolu xanaa ci man benn loxo bi juróomi baram la bi ci dess ñenti baram la ya rahman ya rahim Rahman ya rahim ku jinne jàngal way de ba munta way dañ la wara duma ku jinne jangal way ba munta way dañ lay duma jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba.